wa assalamualaikum warahmatullah ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu wa axlu càlle gep di nuyu sama rakk bi nga xam ne mooy ak magam bi nga Anta di sunu ah, di kontan loolu ci événement bi nga xam tay tey am nañ ko muy bis boo xam bisu mbégte la xale bu ñu ni mokkal na alxuraan ba di tari ah, mbok yeeg famille bi ñëpp ñëw toog fekke ko sëriñu daaraam ak ñi ko doon jangal mu taré ko taré bu sel lool bu mok lool kon duñ def duñ dul kontaan ci ah mokkal alxuraan nag jagleeg suñu borom la duñ ñepp koy def duñ ñepp ko man bar nañu jang alcorane te mokulum ko waye xale bu toll ni toll ci fukki at ak ñent jang alcorane bu mokal ko ba taré ko tari bu sel lool kon ak suñu borom la di ko ñaanal rek yalla tek aw fanam ba askan nga xani bokku na ci yàlla yëkkati ko ba mu sut ñëpp ci kaw comme nii mu toogee nii tari alxuraan ci biir kër gi nga xam ne c'est la première fois mu musa am fii ci biir kër gi ñu baas fi baas ba nga xam si ni baasub alxuraan la ngir ku mokkal alxuraan kon loolu defuñu lu dul kontaan ci di ci am mbégte lool di sant juróom yi nga xam si tamit ñoo ko taxaw ba man li tey yaakaar naa kenn ku ne xam na ci ñoom bëgg ko alxuraan ak jàng alxuraan ak di ko jàngalu seeni doom waaye yàlla wàccee mu mokkal ko yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na nekk mag te nekk magum lislaam di kontaan tamit ci Babacar mi nga xam ne moo ko doon jàngal ak ay soxnaam yi nga xam si ne tamit ñoo ko doon taxaw ndax tey buñ ko bundu wala ñu koy mitital xaj na du am temps mën a jàng bay mokkal kon ñoom it am nañ ci euh, joué bu am solo lool ndax jàng dafa metti surtout nag nga nekk fa nga xam si ni dañ la bundu xataal mm-hmm. waaye nag yaatal nañ ko ba yàlla dogal na mu mën a teewlu ba mën a jàng ba mokkal kon ñoo ngi leen ci sante bu baaxa baaxa baaxa baax a xam naa leen ci sante ñaaral bi nga xam ne sax moo ko yoroon waaye aaw bee moom daanaka du ci dara comme kii ñu ko joxoon li nga xam ne moo di ñaareel ba kon dañ ko ciy sant bu baaxa baaxa baax a baax di jaajëfal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah tali alquran ñu nuyoo di siyaare di sant yàlla na alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla di julli yeneen di seydina waaw ñaan ñëpp di baal ak ñëpp di baal ñu ak ñëpp am nga mbégte ginnaaw waaw am naa mbégte lool maa ngi sant yàlla bu baax sant Seydina Mohamed ndax alhamdulilah sama sang bi tamit moom it taxaw na ci dem dëgg yàlla am na yàlla fayal ko sant daam dëgg yàlla lépp moom a ginnaaw yàlla barke si Abdou Barham Baye Awal yàlla na fi yàgg ñu sant ñëpp ci gërëm ñëpp di am kontaan di ñaanal ñëpp sant Babacar Wilane kenn mun koo fay xaayul kenn ci leen donga yi lépp la ciy def mooy xotti mooy faj mooy def lépp yal na yàlla fay ko yal na barkeb ko kontaan dañ gépp dala ci waa kër daam ñëpp daal mun ma leen a yàlla yàlla fayanteeg ñoom ndax gone moom boo nekkee moom di ko sant yow may maga gone moom xamul dara kan naa leen gërëm naa leen yàlla na masalah. fayanteeg moom masala maa ngi leen di sant te di dami, gërëm te mbay mi gërëm naa ko ndax daam mii nekk na ca kër gee jaaxlu yor sama waa kër ñee ba fi bàyyam jóge léegi mën naa ne ñoo ma yore ndax kon tey ba tey tey jii dem naa jeb naa mbay mii bu ko daam nee ko defal na mu defal na koy bu ko nee jógal mu jóg taala mii nag baax bàyyi rek ak ko kenn gisu ko ca mbedd muy taxawaalu kenn gisu ko ca dëkk muy taxawaalu yàqul sama sàkket wee dóoruñu saagawuñu gone jóoy fi ñu taalaa waa këram ñiitam tubaarkàlla naga déem laa sant bay ni ko xam naa mën a wax ci àllem déet waaye nag koy ñaan ci yàlla gis ko ci yàlla yàlla na ko yàlla wallu ba defal ji yàlla na yokku seen daara ji yàlla na yokku ndax seen ànd bi rafet na rafet boo xam ni lu ma ci wax rek daa koo joxu rek waaye ñëpp gis na ko wéerante wu leen xuloo nooyu leen defu leen dara ànd seen ànd bu rafet yàlla ne leen yàlla jàppale taala mii nag maa ngi koy ñaan ci yàlla bis bii ko bi defal tey jii yàlla nañ ko defal bisu ndax baayam baax na ndeyam baax na ci assalaam ñu nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne wax dëgg yàlla kontaan na ndax lii moom mbégte la ndax bis bi moom suñu bis la ndax taala moom dafa doon xale boo xam ne booy wax ci moom sax doo xam looy wax ndax wax dëgg yàlla nit ñi lu la ñuy defar taala xamul sonn doo ko yónni ba mu la doo ko wax ni lii yow ya dem ba mu jurus nga xamni fi kii li ko tek atal ko nga baye mais taala wax dëgg xale bu yaro la amul ben problème man mi man nan ko féetale won mais man mo xamna sama jot bariwul tooguma lolo tax waye wax deug yalla temps yi may nek ak mom gis na ni mom xale bu yaro la ñu ngi sant tamit bu baax ay wajuram ndax ñom tamit waxuñ ci ben yoon dañu ko jox baye ñu ko doyloo ñu ko te bu leen neexoon di xool ba xam taala ñu ngi def wala ñu ngi wax loolu lépp du leen si fekk di sant ndey mi tamit baax di ko gërëm ndax wax dëgg man moom tooguma lu bari moom mooy toog waaye xale yi chaque jour moo si nekk di lijjanti di wax di def di bàyyi man su doon man dong mën naa dara du lijjanti ko xam nga ku jàng moom daanaka amoo temps bi waaye wax dëgg yàlla xoolul loolu yëpp heure su ma ñëwee maa ngi fekk mu nekk ci xale yi di xool di lijjanti kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant suñu sang bi wi Wilane moom tamit wax dëgg yàlla kenn gënu ko ndaxte teg nañu suñu place teg nañu fu ñu war a teg te moom jàmbaar la bëgg alxuraan lool lii lépp egsi fii moom la ndax wax dëgg yàlla moom tamit daara ji def ci sonn guddeeg bëccëg suba ngoon mu ci daara ji même bu génnee sax lu mu gàtt gàtt daf lay woo defeel nii waxeel nii daara ji ñor na ko loolu yitteel na ko ñu ko ciy ñaanal moom tamit mu dem ba doom di ci tere sant nañ bu baax gërëm nañ maa mënta wax ci mbooloo nag waaye dëgg yàlla sama xol sedd na kontaan nañ bu baax a baax leen di nuyu di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko saaku si yàlla dëgg yàlla am nañu mbégte torop tey kontaan nañu lool ndax suñu rakk ji di taala nekk suñu ba mokkal arxuraan sant yàlla la ñu ngi ciy gërëm suñu sëriñ bi ko doon jàngal muy mbay kontaan nañ trop wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ndax taala doon na xale bu yaru xale boo xamante ni amul benn problème taala loo ko wax du la gàntal doo ko yónni ba nga xool kanamam gi nga xam ne am na lu ko métti déedéet mi ngi si sa wet suba ngoon waañ ba sax boo fa nekkee yéen koy bokk amul benn problème mosuma gis sikkam fenn wala mu wax nag sudul noonu mosul am kon nag ñu ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax di ñaan yàlla rek alxuraanam mu doon njiglaay ci moom mu jig ko ba wàll ko ay rakkam ñu ci topp ñëpp mu mutloo ko lu mu ci bëgg fu xam-xamam bi bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale di kontaan loolu rek ci code bi nga xamante ni ñoo bokk nekk ci kër gi mu yor xale bi moom it wax dëgg fa neex yàlla moom maa ngi koy sant daal di ko gërëm ñun ñëpp benn lañ wax daal mënuma ko moom waaye maa ngi kontaan daal di sant <laughs> waa kër gi ñëpp ku lim jum daal te sante yaay mi rek mosuñoo xolé benn beut sama doom mi ngi ci kër yeen a ngi koy liggéeyloo wala yeen ngi koy def masul am ba ay magam papa papa nonu wax deug yalla mom mokalam bi dal contane nañ ci torop sha allah. ñu ñëw di siyaare di sante rek sante sama serigne bu ñaawal bu rafet bi ma ngi koy di ko ñaanal yalla yalla guddal fanam may ko yokko ko bu baax ba yekku ñaan yalla li bëgg ci njabootam yalla yalla defal ko ko. di ñaanal moor mi nga xam ne moo doon tare alxuraan tey jii mu njiglaayam yàlla na yàlla def muy njiglaayam yàlla def koo mag def koo mag mu am ñam yàlla na yàlla def lépp lu alxuraan yàlla def ci dënam bi yàlla bu mu ko rëcc yàlla bu alxuraan yàlla bu ko alxuraan rëcc yàlla bu mu rëcc alxuraan yàlla na ko yàlla def rek Seydina Muhammad di ñaanal ay magam di ñaanal ay rakam di ñaan yàlla jàmm yàlla defal ñu jàmm bu baax ndax jàmm ci la lépp xaj yàlla nañu yàlla may jàmm yàlla nañu yàlla may di ñaanal suñu góor bu baax a baax nag suñu kilifa yàlla yàlla yokk ko bu baax ba yëg ko dëgg yàlla bëgg nañu yërëm nañu yiir nañu yàlla yàlla yàggal taxawaayam ñu dund ba ñu ñëpp ñu bokk fi nekk suukar loo ko fi ne asamaan suuf ñu ñëpp ñu dem bay raam barke Seydina Mohamed yàlla yàlla yokk alxuraan ji bu baax a baax ak Seydina Mohamed